di ko ñaan baax suñ boom yokk aw fanam ak du ba lii mu yéene si liggéey sëñ Tuubaa mu def ko na ko bëggee te na ànd moom waaye di nuyu baax sëñ Amadou Muxtaar xalifa Cheikh Modou Moustapha ak mbooleem njaboot Cheikh yëpp di ko ñaan baax suñ boom guddal aw fanam di nuyu di baax sëñ Cheikh Mbacke Madina ak sëñ Abdou Rahman xalifa sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di nuyu di ziar baax sëñ Moustapha Mbacke Mohamed te yëkkati ay kàddu yu ndigal. si bàyyi ko ci moom ci teewaay bi nga xam ne boo jàkkaarloog moom si xel yëpp dana xalaat lan moo waa jaxaay bi waaye danga xam ni kon bis bu mag bi ñu dëgmal di bisum ndigal ba jugee sëñ Touba xalifa sénat de Mouride sëñ Muntaxa ibnu Cheikh Amadou Bassirou ci woote boo xam ne woote na ko te woo ci mbooleem taalibe yëpp si bis boo xam ne da ko jagleel xasida yi te soññee ko te yaatal woote bi te bëgg bis boobu muy bis boo xam ne benn bis lay doon te bëggit mu bis boo xam ne day làmb pas-pas at pas séef te jàng yendoo ko jàng xasida taxawaay boobu nag nga xam ne moom la suñu Muntaxaa woote sëtam bii di sëñ Moustapha Mohamed am ci yéene ak taxawaay ju mag ba tax mu yëkkati ko kàddoom jox ko ahibaayu xadim bëgg ñu taxaw ci taxawaay boo xam ni dana ràññeeku lool ba ni ko sëñ Muntaxa bëggee ñu amee ko noonu loolu moo tax jëmm yi ngeen jàkkaarloo ñu teew fi fas yéene yëkkati ay kàddu di kàddu yu woote yu jëm ci mboolem ñi bokkal Ahibahil Khadim ci juróomi groupement yëpp. fas yéene indi na kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci sunu sang ki ni ñaanal mu yàgg fi lool te mu Cheikh Moustapha Mouhamed Mbacké yàlla na ko fi sama borom yàggal te wéral ko ci barkeb sëñ Touba Cheikh Moustapha dafa wax ne bis bii di àllarba di fukki fan ak benn ci weeru ut war a tombeek benn fan ci tamxet bi wala ñaari fan ya te Cheikh Maodo Muntaxa woote ko fii ci Touba muy bisub xasida buñ ko jagleel buñ jagleel xasida yi Cheikh Moussa daa wax ne mi ngi digal képp koo xam ne mooy sa buntu ci Serigne Touba bala ko sama borom man la bu bés boobee na nga ñëw fii fi Touba wuy si wuyu wuy si woote wooteb sëñ Muntaxa boobu yi jëfe si ndigala sëriñ Serigne Muntaxa loolu te xam ne moom Cheikh Moustapha fas na ko yéene ànd ak moom te fas na yéene kenn du ko ci man kenn du ko ci jitu lam bëgg nag mooy ñu defe ko fii fi Touba te defe ko fii fi moom ci këram gii ci Darou Khoudoss fii ñuy màggale màggalu Darou Khoudoss ci nañ ko daa màggale ci buntu kër gi sëriñ bi ne nañ ko defe noonu loolu moo sabab moo jox ndigal bàyyi sëriñ Diop Maxtaar mii nga xam ne mooy suñu jëwriñ fii te jiite liggéey bi mu mu jottali lool yi ndigal lool yi ci ñëpp te daanay si loolu incha allahu taala nu war ci sant yàlla nag bu baax ngir yetti mbir ci li xam ba ci jiitu mooy tawféexi ndigal jën am tawféexi ndigal kon war nañ ci farlu ndax ndigal yombut rawatina ndigal lu jóge ci kam war a jóge jëm ci kam war a jëm kon am nañ tawféexi ndigal kon benn ngoog ñaar bi tam mooy tawféexi lim nu digal te mooy jàng xasee di sëñ tuwaay loolu itam tawféex mënoo ko gën a kawe benn yoon ndax sëñ bi dana karaamati yi yeddi jàng xasi da tawféex tawféex ji ne kenn xamul lu mu toll boo demee ci mawaahibun naafi ak muqaddamatul amdaax benn bu ci ne da nga gis ca tarjumaan yi ci njëlbeen yaag mujj ga lépp sëriñ bi di ci wax ne na nga may képp ku jàng xasida gi wala wala sama tagg yii sahaadatu dara ni texe àdduna ak alaxira yemu ci sax ba yàgg mu ne wala ku ko bind ba yàgg sax mu ne wala sax ku ko xool ndegam nag xasida moom sëriñ bi da cee àgg ci xool gi rek tawféex la xool gi ak jàng gi sëriñ bi digle na nag bis boobu bisub xasida la kon nee nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ci fàggandiku képp kuy ñëw na nga fàggandikoo jàng xasida ci barab bi ñu koy defee fii ci buntu kër gi kuréel yi war a ñëw yëpp da da dana ñëw ñu ña nekk ña ña jar si nekk ci durus ba ña nekk ci xasida ya ku mënul ci yaar yooyu te mën a tudd turu yàlla nga di ko def waaye na na nekk melokaan woo xam ne melokaanu yar ak teggin lay doon ngir jëm sëñ Tuubaa ak xasida yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax kon Cheikh Moussa wax na nañ fonk bis bi ndax fonk na ko te it incha allah bu jàllee daañu gis tawfiix ju kawe kawe joo xam ne musta nekk sax ci xel yi bañ di ko xam wala ñu di ko faggu fas ko nag ànd ak Cheikh ak jëwriñ yi nga xam ne moom la jox liggéey bi te sëñ bi boole ñoo ñoom ci turu Baye sëñ Diop mi muy sëriñ Hamsatu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite mboolem njàngum xasida mépp ak sëriñ euh, ak ak ak sëriñ Youssou Diop mi jiite Hizbu Tarqiya nu fas yéene ànd ak ñoom organisation boobu ak lépp luy doxal bis bi te lañ ci jublu rek mooy ne ko Cheikh Mountakha bëgg rek mu amee ko noona te ñooñu la teg ci kanam te te def na nag ñoom ay waxtaan yu yaatu incha allahu taala fa sañ yéene daal euh, bés bi moom ku digal daan ko ne defee kon ahibaalu xadim li nusrati diin xayim fu ngeen mën a nekk ci àdduna ku mën a ñëw na ñëw teew fii ci kër Cheikh Moussa Mahi Mbacké ñu def ndigal la sëñ Touba li. si jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di jiital ci sunu siyaare ak sunu nuyoo Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké Mohamed di ko ñaanal sunu borom yagal ko ci sunu kanam te defal ko ak wér may ko kattan ba mu eggale ay yéenam ak naalam doon ànd ko ak moom di yëkkati rek kàddu goo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ni ko sëriñ Moustapha Bassirou loo waxee eh, sëriñ Moustapha mu digal mboolem ñi nga xam ne ñooy Ahibahil Khadim waaye jaarale ko ci section Ahibahil Khadim bu Touba nag ñuy wax ci turam ak ci turu soxna Mame Bousso Mbacké ak ci turu Cheikh Mahamadul Amin jëwriñu sëriñ bi ak Cheikh Mahamadul Falil jëwriñu sëriñ Moustapha eh, di jottali rek bokki jullit yi bokki taalibe yi si ñu fi mën a nekkee ñu bokk ci añu Ahibahil Khadim yëpp ni ko sëriñ Moustapha Basir loo waxee rawatina nag fii ci section Ahibaahil bàyyil Xadim bu Touba ñoom ñëpp ni ko sëriñ bi santaanee ñu defee ko noonu àllarba ñu teel a ñëw ci place bi nga xam ne si foofu la ñuy war a jàngee te def ko ni nga xam ne noonu lañ ko santaanee euh, ci biir loolu nag ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ci euh, yëgal gi suñuy jëwriñ ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal añu Ahibaahil Xadim yi muy cinq regroupement yi. te ki ci jiitu duy bàyyi Serigne Mbacke Gueye ngàcc mi nga xam ne moo jiite seex yëpp di jëwriñu liggéey bi mu ñu ko yëgal ay ndaw mi ni toog sax xam naa danañ ci yeggul di ko yëgal itam euh, Serigne Modou Mbow mi nga xam ne moo jiite ansaaru diine bi moom ak ñi mu ko bokkal ñëpp waaye di ko yëgal itam Serigne Baraloo ak waa jamaatul muridina saadixina di ko yëgal itam Serigne Bara Sall mi nga xam ne moo jiite diaspora bi di ko yëgal bokki taalibe bi yëpp fu ñu fi mën a nekke ñu xam ne lii sëriñ bi bëgg mooy li sëriñ Muntaxa digle eh, ci bi ñu koy defee fépp nag bi ñu koy defee fépp bu sañoon buntu këram bii nag bu nga yàlla dogalee ndaw yi nga xam ne si moom la sëriñ Muntaxa jox liggéey bi ñëw fi danañ fekk jataay bi mel noo xam ne si dana wuuteeg jataay yu baree bari loolu itam lañ ci seenu sëriñ bi itam xam na ne danañ fas nañ yéene defe noonu kon nag nañ ko waajal te bu ñu ci eggee ak jàmm kenn ku nekk lu mu mën mu def ko ci ci yar ak i teggin ak Pastef ci li nga xam ne moom lañ yaakaare ci kër gi te loolu moo fi daan nekk démb ak bërki démb kon ñu ngi ci woo ñëpp. dañoo bëgg ñu xam ne mbir mu ne su organisé woo mën naa tege ci aw yoon su organisé woo mën naa rafetal loolu la ñuy def ci organisation boobu nag ci la bëgg a ñëw tuuti rek ci ci ci ñi nga xam ne nag ñoo ko jiite fii ci Touba muy sëñ Mourtala Kare ak soxna bu Fall loolu lépp nag ñu ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci organisation bi daan féete ci Touba ci yeneen dëkk yi fu fi section bu ci nekkit ña ca ña ca bokk ñëw jàpp leen ci organisation bi ba lépp aw ci aw yoon waaye ku ne organisation ñaari ñaari fànn lay doon benn bi mooy organiser nit ñi ci seeni jëmm ba jitaay bi mel ni mu war a mel organisation bi jitaay bu bu nag ci la bëgg kenn ku ne koo xam ne yaa ngi ñëw nga bàyyi xel barab bi bàyyi xel melokaanu ni taal bi war a mel melokaanu bis bi ni mu war a mel ñu mel noona ci am col ci aw toogin ci ak dal su ko yàlla dogalee itam fës nañu yéene yaa jiitaay bi ñu taaral ko ci góor ñi ci ndijoor jigéen ñi ci càmmooñ ñu ngi sàkku it ci mboolem ñi fi ñëw ñu ànd akuk dal akuk teewlu ak bisub teewlu la bisub defaru la ñu ngi soññee it bu baax a baax ci turu soxna maam Bousso Mbacke mi nga xam ne moo nekk kanam soxna yi wax na ni soxna yëpp day mi ngi leen di soññi koo xam ne ñëw nga te mën a da durus nga durus ko ñu ñu ànd ak dal ànd ak tey am nañu pas-pas ci organisation bi képp koo xamante ni bii la war ci yow ci xeeti ci bernde xeeti dinañu dinañu ko fexe ba bu ko yàlla dogalee eh, dara du ca des fu fi waaj toogit la la fa war a fekk dina la fa fekk incha allah ñoo ngi sàkku ñëpp toog rek kenn ku ne daal fa nga nekk la la fa fekk dina la fa fekk ñu bàyyi xelat ci ni jamono ji am na aw melo jamono soo amee aw melo dañ ko war a bàyyi xel ndax li xew nii moo tax képp koo xam yaa ngi ñëw ñu fexe ba respecté masque yi ndax ay masque yi bokk na ci li nga xam ni da dafa bokk ci ndigal yi ñu war koo fexe ba sàmmante ak moom distanciation sociale yi xam naa du yomb ndax jiitaay benn tooge waaye nag masque yi daal moom noonu ci soññi ñëpp ay selet bëgg nañu bu ko yàlla dogalee dinañ ko waajal ba fu waaye laal sel loolu daal noonu mooy kàddu yi nga xam ni moom la ñoon jot la ci organisation bi ñoo ngi woo ñëpp di woo mboolem ñi nga xamante ni ñoom lañu bokkal Ahibahil Khadim daw nañu fii tey ànd ak sëñ Modou Amar ak mbooleem jëwriñ ñi fi teew yëpp ñu teewal fii bàyyi sëñ mbakki Géey ngàcc ci ndigal lu rëy li nga xam ne daa bàyyi ko ci seexul xadim seex seex Mamadul Muntaqa mu jot ko réew mi ak bitim réew kàddu yooyu di kàddu yu ndigal ndigal nag la ca mag ñi daan toftal waaw rek kon waaj nanu ba jekk sun njariñal tey ak sun njariñal ëllëg adduna bi nax na lool jamono ji nax na lool waaye xarasahu llaahu la ci sëñ Tuubaa fii fi Tuubaa te mooy Cheikh Mamadul Muntaqa kon dëkk bu suñu borom aar la saa bu demee ba metti ba nit ñi jaxasoo xel yi jaxasoo Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa delloo si waat leen ci ak benn waxta si moo bi Abdoulahi jameen kon lii nga xam ne moom la ñu digal suñ njëriñal addunaa ci nekk ak alaxira képp ki wax ashadu an la ilaha illa wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ndigal loola yaa nga ca biir kon nag nu fas yéene jëfe ndigal loolu ci biir loolu itam Cheikh Mouhamadul Moustapha ndigal loolu itam bi mu ko déggee mu waajal ko lool kon loolu aw sas la ndimbal la lu rëy la te lu mas a rek noonu la cee doxee kon nos na ko ba mu nekk benn nos mu teg ko ci loxob jëwriñ yooyu mu teguwaat ci jëwriñ yi nga xam ne mooy si am satu bi nga xam ne moom la ko sëñ mu taxaat teg lépp ci loxoom mu ànd ko ak sëñ Youssou Diop kon nos yi ñu nos itam mu jaar ci sëñ Moussa Bachir jaar ci bàyyi sëñ Diop Matar jaar ci juróomi regroupement yëpp góor ak jigéen réew mi ak bitim réew ak fu ab jullit nekk rek nos boobu tabbal na sax moom sëriñ bi tabbal na ci biir nos boobee jëla ci woo te xam ne suñu njëriñal tey ak ëllëg la moo taxoon bàyyi sëñ Mbàkke Géey yabal seenu fi nu ne ci seen gannaaw di déglu kon lépp la nga xam ne moo ci war seex si ak fuñ mën a nekk bàyyi sëñ Mbàkke nee na nan fokk bernde yi ak xéewal yi ak it kenn ku ne la nga gën a bëgg na nga ko indi ci bis bi ñu jëbal ko say sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te loo bëgg nga fas ko ci loo ci fas da nga ci dajeeg moom te noonu ñu ko waxee ci yar bi ak teggin yi ak pasteef bi ak matale gi lépp jàng alxuraan ak xasaayit ak durus yan doog loolu yi la ci sëñ bi bëgg nan fas yéene teew ci loolu yi suñu fa jóge suñu aaj yëpp faj nu ñaan Cheikh Moustapha yàgg fi lool Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi lool Cheikh Ahmadoul Mokhtar yàgg fi ak jaboot sëñ Tuubaa gépp wasalaamu xayrul ajizi bilaw